ah yes saa sama gars yi mi ngi noonu tey Ousseynou mu baabel tey moo jël soxna ah première attaque baa ngi noonu tey nii la génnee sama xarit baa noonu ah nee naa la groupe pexe groupe pexe mais dafa mel ni mi ngi jëm si ménagère si ménagère la jëm dem na si ménagère dem na si ménagère sama xarit la ah. soo ko doon miraat si yaram dëgg neexul macha allah la cat mais comme comme yaa des war a simoo yee des amati ndam amati ndam ñi doon waa ay ay ay waaw amati ndam ah, waaw foog ne ñun bëgguñu lu baax. waaw amati nañ ndam. amati nañ ndam. amati nañ ndam champion bi. naka jàmm ji cool na. amati nañ ndam. man dama tëb miir ba. Aliou Aliou. moom frère moo nami. maa ngi lay bëgg bu wér kenn du yow. champion bi. waaw. pétrole dafa fay. pétrole feeñ na Ousseynou pétrole feeñ na. pétrole bi feeñ na. pétrole feeñ na. pétrole bi feeñ na. Ousseynou day takk jabar Ousseynou takk na xale bi may nañ ko ko ci sunna ak farata may nañ la ko ci sunna ak farata may nañ la ko ci sunna ak farata